asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 daleen ak jàmm ci seen émission SOS santé ci euh, Rewmi FM te ñu am mbégte di euh, dalal ki nga xam ne moom mooy Mballo Dia Thiam Mballo Dia Thiam nag di euh, njiital SUTSAS waaye tamit di njiital alliance ànd gësëm di syndicat yoo xamante ne dañuy revendiquer lépp loo xam ne jëm na ci wàllu wérgu yaram fii ci Sénégal Mballo Dia Thiam ñu ngi lay nuyu. waaw oh, maa lay fay Oulimatu di nuyu auditeurs Rewmi FM yëpp. Mhm. di nuyu waa Sénégal yëpp di leen balu ak ci koor gi. Mhm. di ñaan yàlla ñi feebar yàlla fëgg seen bopp. Mhm. Ah, di ñaan yàlla aussi euh, mbas mi <clears throat> yam fi. Ah, di ñaan yàlla aussi euh, <clears throat> ñi xam ni gën a seen mbokk yi di leen jaar ñoom ñëpp tamit. Euh, di jéem a aussi euh, jox sargal sargal yukkal travail santé ak action sociale yëpp yu nekk ci mbir mi. Mm-hmm. di la jaajëfal bu baax a baax itamit ci euh, disponibilité bi voilà tey Mballo Dia Thiam ñoo ko déggandoo sànq point du jour ci junni ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ci ay test yu ñu amal téeméer ak ñaar fukk ak benn daal di ñëw am li nga xam ne moom mooy coronavirus mu mel ni kon cas bés bu nekk. mu ngi mel ni day gën di bëri yow ban analyse nga am ci ka ci déjà point wu tey bi. waaw point wu tey bi kay mën nañu wax ne rek mooy point wu démb mooy point beneen beneen beneen bis parce que li ci am solo dafa mel ni saa yu ñu amee disons limu téeméer rek am na fukk yoo xam ne nii wala lu ko yées suuti euh, am nañu feebar bi saa ñu defee analyse wu euh, téeméer rek donc am na fukk wala lu jege fukk yu ko am bon loolu mooy feebar bi donc mi ngi gën a law mhm. te cas communautaire yi encore ñu gën a bëri mhm. donc parce que cas contact yi mën nañu wax ni sax am na lu ko taxoon wundu lu mhm. mais cas communautaire moom kenn xamul nu mu demee ah, ba tax na nag ci suñu njàngat daal mooy dans un premier temps li amoon mooy échappement virus bi ah léegi nag surtout région Dakar bi ci boppam moom li ñuy wax éclatement virus bi Mhm. maanaam léegi virus bi amul Dakar ku mun a wax ni daal du fi ñëw wala nekku fi. Mhm. xanaa nag dañ ko saytuwul wala ñu yéex ko saytu. waaw ba na nag loolu dañuy na day indi njàqare. Mhm. parce que njàqare dëgg la indi ndaxte ka ci boppam saa yu rek. donc <laughs> cas grave day yokk <clears throat> gis nga aussi cas grave yi yokku nañu. yokku na waaw ñu aussi Euh, bërëb yi ñu leen di faje donc bu fekkee dañoo tumuranke yenn yi wala bu fekkee ni gën nañoo bari ñi leen war a sàmm donc nekkuñu lim boobule day indi yeneen jàqare mm-hmm. ba na nag euh, ñuy jéem a répéter rek li nga xam ni professeur Seydi waxoon na ko bu njëkk ko mm-hmm. ni défi bi nekkul défi wu faj maladie parce que bu ñu amee quelques cas mën nañ leen faj mais quelques cas grave day am complication mais bu ñu ba bañ am cas donc moom moo gën fexe bataille bi mooy fexe ba ñu bañ am cas mm. euh, loolu mooy loolu mooy mbir mi mm-hmm. donc loolu daal euh, si njàngat daal loolu lañ am comme li ñu war a mën a wax ci njalbeen bi daal ci situation boobu la. Mm, Mba Mballo Dia Thiam dañu gis ne tey ci euh, cas yi mu ngi gën di bëri wax nga ko naam euh, lim bi nga xamante ne dañu koy jël ngir di ko di ko di ko saytu euh, lim bi aussi daal dina yokk ndax bu demee ba mil rek dañuy gis ne cas yi tamit daal di bëri mais tey am na benn beneen jàngat buñ ci mën a am est-ce que tey teel na peut-être ñu ne décision yi ñu njiitu réew mi jël ci assouplir. mesures yi ñu jëloon est-ce que teel na tey ñu wax ni mesures yooyu moom moo tax tey cas yi di gën di bëri surtout cas communautaire yi. non mënuñu wax teel na parce que <clears throat> li ci am solo mooy li taxoon na ñu jël mesures yi euh, dañu ne woon dañuy fexe ba bu nit ñi fexe ba ku nekk du ko jox moroomam donc maanaam fexe ba chaîne de transmission bi ñu dagg ko looy loolu moo mun a tax feebar bi daal di dellu ginnaaw euh, ba tax na mesure yooyu moo taxoon ñu def couvre-feu mesure yooyu ñu taxoon ñu ne circulation bi taxawal nañ ko ak yu mel noonu waaw dootuñu def ay rassemblement loolu am na lu am na lu mu juróon mm-hmm. waaw rassemblement yeeg yooyu am na lu mu juróon waaw léegi nag bu ñu demee nag ba nga xam ni kaa yaa ngi gën a bari ñi ñiy gën àddina di gën a bari ñu ne léegi dañuy dañuy wàññi loxo maanaam dañuy desserrer dañuy permettre nit ñi demaat ci lañ nekkoon presque parce que boo gisee oto yi nga xam ni dañu nag ay oto trente cinq places douze personnes ñoo fa daan nekk léegi nee nañu trente cinq places yëpp jël leen ko. Ah, taxi yi seen wàll boobu gis nga te loolu aussi dëkk bu mel ni Dakar ak yu mel noonu loolu day gën a gën a yombal affaire bi léegi mm. boo gisee arrêt yi ñu fees dell ak ak ay ak ay nit ak mm. feneen ak feneen marché yi encore léegi eh, demoon nañu ba naan juróom-benn fan yu nekk eh, ñaari fan wala ñett fan lañ ciy dem marché léegi ñu ne benn fan rek lañ dul dem marché mm. loolu loolu loolu day nekk day gën a créer condition pour que nit ñi gën a dajaloo di di gën a joxalante feebar bi loolu loolu loolu jarul ngay gëstu gëstu bu sori pour loolu. Mm-hmm. te ñun heureusement que suñu communiqué bu mujj bi ah, wax nañ ko mm-hmm. nee nañu ñun dañ ci am njàqare am ci sax bettange. Mm-hmm. parce que bu ñu toogee ba nga xam ni nee nañu Touba ak Dakar ñoo koy joxalante. waaw donc am na lu bari lu ñu war a def Touba ak Dakar pour fexe ba fexe ba ba ba lu ñu war a mën a permettre yeneen régions yi entre guillemets ñu duñ ko permettre Dakar ak ak Touba daa mm. dégg maanaam ñu fexe ba <clears throat> circulation bi ñu fexe bo ñu jëm ko dakkal buñ ko dakkal aussi jël ay ay ay ay matukaay ay ay matukaay loolu moo am solo si donc loolu bu buñ ko defulee ah mais day gën a law rek. dañu gis ne tamit euh, comme li nga wax bettange gi moom daanaka ñëpp ko daal di bokk bettange parce que ci jamono yi nga xam ne cas yi bariwuñu woon ñu jël ay mesures mu dem ba am fu mu toll ñu daal di bàyyi mesure bàyyi ñi di libre tey mu jaaxal ñu bari li tax exactement njiitu réew mi jël décision boobu le am na ñu naan. ñi pression religieuse ñi naan pression sociale ñi naan nit ñi dañoo demoon ba sonn ba mënatuñu donc mu bëri ay ay version mais dafa mel ni njiitu réew mi dafa dem ba dal di céder à la pression. waaw xam nga <clears throat> moom fi mu toll xabaar yi muy am ak euh, euh, ñi muy euh, waxtaanal xam nga ñun àgguñu foofu. Mhm. mais li ñu mën a jàngat daal mooy comme que nit ñi commencé woon nañ di lof parce que feebar bi aussi dafa am ay répercussions économiques mhm. ah nit ñi dematuñu dëkkatuñu te xëy na mesure yi mu jëloon ni day génnee mille milliards fexe ba dund kii daal yemb ñu yóbbu ko ci délai yu gaaw pour que nit ñi mën a duñu mën a yëkk euh, maanaam euh, contrainte yi ngi foog ni moom lañ leen def mhm. bu fekkee ni loolu la woon bon dem na ba nga xam ne dund gi mu waxoon génne na ko donc gaawul noonu mhm. ah, ba léegi sax am na ñoo xam ne jotaguñu jotagul bëri na. Mm-hmm. jotagul ba ñaari affaire ñoo war a mun a am. Mm-hmm. da ngay téye nit ñi benn place jox leen dara ñu am lu ñu téye nga téye leen lu mat fukki fan wala fukki fan ak ñeent comme yenn réew lu ñu def. Mm-hmm. affaire bi wàññeeku nga daal di firi ñëpp ñu dem seen yoon. Mm-hmm. mais boo commencé tënk leen benn boor ba pare te en contrepartie li ñu waroon am amuñu ko du xaalis bu ñu yor du dund ñu yor lool tam dafay métti si ñoom. Mm-hmm, bon économie di nor di normelu ah léegi nag comme que ñaari risque la xëy na mu mu yaakaar ni mooy le moindre risque xëy na xëy na bàyyi nit ñi ñu dem a ñëw ba noppi mu ne leen jël seen matuwaay. wante nit ñi si ñoom suñu wàll bopp bu ñu demee ba nga xamee ni ñenn ñi gëmuñu woon feebar bi dem ba commencé di ko gëm ba ñu commencé di di di leen wax jëleen masque yi raxasu leen bu leen jege ba loolu di dem ba benn par benn benn wala ñi lu néew ñoo commencé woon di def loolu. Mm. mais da nga war a continuer rendre masque bi port masque obligatoire même ci mbedd mi nga continuer noonu parce que dëkk yu mel ni Washington eh, dëkk yu mel ni New York dëkk yu mel ni Paris ak yu mel noonu bu ñu demee ba leen confiner dëkk mu mel ni Dakar war ñu war a warul mën a jafe pour ñu confiner Dakar. Uh-huh. parce que capitale yooyu li ñu am ci ay relations internationales li fa am ci ay yëngu-yëngu li xaaj bi sax kenn warul xaaj bi sax amu fi. Uh-huh. yaa dégg donc loolu mooy loolu mooy wax bi xëy na nag li soxla woon yembul pour que nit ñi war a a toog benn place te du ñu yëg. tey mën nañu ne kon nekk aveu d'échec la en quelque sorte. <clears throat> waaw en tout cas <clears throat> man de ci ci sama njàngat euh, ñun yaakaaruñu woon ni ci moment bi lañu ñu war a la ñu war a ci <clears throat> la ñu war a desserrer. Mm. bon fi nekk nag si ay euh, di ay jéem def ay jugement de valeur parce que mm. ñun baaxawuñ ci loolu. Mm. mais li ñu baaxoo mooy constater fait yi comme ni ko ñëpp constater. ñu xalaat ni li nga xam ni moo juróon na couvre-feu ak yooyu yëpp tant que mu ngi fi te mu fi gën a bari loolu moo war a jur ñu gën a taral xeex bi wante du caageen yoromal xeex bi. xeex bi moom lañ yaa ngi wax Mballo Dia Thiam lu lu depuis sànq couvre-feu. tey dès le depuis le début ñu bëri dañ jàppoon ni peut-être que ni couvre-feu bi sax booy seet euh, njariñ bi bariwuloon trop parce que tey bu doon question de sécurité par exemple ñu ne peut-être couvre-feu mais feebar boo xam ne amul guddeeg bëccëg heure bu ne lay dox est-ce que couvre-feu foofu pertinent la selon yow. waaw ah, si couvre-feu bi am na ci solo bu baax parce que guddi gi xëy na ci yenn gox yi euh, yi nekk ci biir àll bi ak yu mel noonu ñoom nga xam ni amuñu lumière amuñu dara du ñu bouger. Mm. ñi nekk ñi gën a sori wante ñi nekk ci capital bi ak yu mel noonu bon am na ay milliers yu nga xam ni guddi gi liñ fay def diggante guddi ak bët set kenn xamul mu mel. ci ay concentration nit tëjoon tëjoon peut-être bërëb yooyu gënutoon. ah tëjoon peut-être bërëb yooyu tëj bërëb yooyu. Mm-hmm. non couvre-feu bi moom boo xoolee àddina na àddina bi yëpp def nañ ko. ñu mhm. nekk état d'urgence couvre-feu parce que yenn yi doo ko mën def te defloo couvre-feu. Mhm. yenn yi doo ko mën a def te ni liberté yi da nga koy da nga koy wàññi da nga koy suspendre. parce que mhm. loolu moo taxoon ordonnance bi am d'habilitation maanaam assemblée nationale li nga xam ne moo doon cëram ñu jox ko ko. bon loolu pour que nit ñi seen wàll bopp nga am sañ-sañ ñi leen bu leen bouger ci guddi gi wante boo ko defee ba mu am ay effet nga xam ni xel yi bëccëg bi nit ñaa ngi gën a def seen activité presque quatre-vingt pour cent des activités bu boobaa tamit nga jublu ci loolu wax noo jubloo ci loolu nag mooy nga dem ci naan confinement parce que am na ñeen ñu naan confinement eh, nekkul solution bi mais boo xoolee eh, Chine ba demee ba affaire bi ëpp leen doole mais dañoo delluwaat ci loolu te gis nga seen façon confinement yi dem nañ ba nit sax bu nekkee si benn doo génn sax ci wuti lekk dañ lay fekk fa nga nekk jox la sa lekk egg si mm. niveau de développement boobule mm. mais mais solo daal ci si si gàttal daal comme ko feebar mooy nit mooy ñëw jox ko nit euh, tant que jàkkaarloowuñu wala tase wuñu du ko ko jox nga fexe ba loolu du am mm. mais fekk nag nit ñaa ngi jokkalante seen mbir mi ngi noonu te léegi nag euh, surtout euh, dernièrement li ministère de la santé wa parce que effectivement mu ñu yóbbu ñëpp hôtel waaw léegi am na lu njëlbeen bi la ñu waroon def mooy nit ñoo lekk ñu leen recevoir hôpital ñu recevoir ci yeneen centre yoo nga xam ni centre la pour lu mel nii mm. parce que parce que boo gisee centre des opérations de secours et li taxoon mu jóg mooy lu mel ni pandémie wala épidémie wala surtout lu mel ay catastrophe loolu moo ko taxam jóg ñu waroon wut ay bërëb yi nga xam ne bu yooyu amee ñu yóbbu fa nit ñi comme que yooyu comme que amul moo taxoon ñu obligé dem fan ensuite maintenant dugg ci opito yi mais xam nañu hôpitaux yi bañ demee ba lal ya fa nekk yooyu ñu koy jël ba ñu fa waroon duñ fa faju ah ñu toog seen kër feebar yi ñu amoon mu nekk ay feebar yu yu chronique ñu ne léegi ne hôtel bi fañ fa doon yóbbu cas contact fa yóbbu ñenn ñi nga xam ne dañoo asymptomatique maanaam gis nañu feebar ba seen yaram mais waaw mais buñ ko yóbboo tamit lool bu continuer tamit hôtel yooyu day fees léegi lan mooy solution bi nañ delluwaat ci kër yi hmm. mais bu ñu delloo ci kër yi aussi problème bi ñu doon daw ci njalbeen ga donc moom la ñu fekkaat ci kër yi. Hmm. parce que kër aussi hmm, parce que tey kër yi voilà peut-être configuration sunu kër yi mayewul yenn yi aussi. voilà loolu la loolu mooy problème bi parce que ñi nga xam ni seen seen dëkkuwaay yi sax mel nañu suñu bos yi nga xam ne ay appartement la ñu doon ñaar ñett nit ñoo nekk ñoo fay nekk ñooñu fay na loolu mais suñu dëkkuwaay mm. nga xam ni dëkkuwaayu communauté dëgg la. Mm. parce que benn kër vingt personnes ci benn ah, kër ah, bu ah, na kër gu amul di personnes. Mm. yaa ngi dégg parce que surtout ñu nekk capital fii parce que boo fi nekk aussi am nga sa njaboot mais aussi am nga euh, say say say parents. sa yenn famille yu nekk ay feneen yoo xam ni seen doom yi muy jàng dañ la koy denk wala ñeneen ñuy ñëw fi di fi def activité donc néew na kër yu yu yu yu am yu am lu yees mm-hmm. te fukki yooyu lan la ñuy bokk ñoom ñooy bokk bokk benn toilette ñoom ñooy bokk lépp ñooy bokk nu ñuy lekkee surtout que ñun ñun ñun ñu dañu mës vivre en communauté nekk ñu ay vie individuelle ak yu mel noonu ku nekk ñun meluñu noonu mm-hmm. na loolu tamit euh, afin euh, day day gën a indi rek parce que li am solo mooy loolu wàññiwul euh, kii bi jegeyante wi au contraire da ko yokk ah, te bu ko yokkee aussi risque bi propagation bi aussi dafay am. Mhm. donc euh, mhm. ñun mu nekk daal mbir moo xam ne euh, yombul pour ñu pour ñu faj ko euh, tey ji cas yi aussi daf ci war a def taxaw seetlu dafa mel ni tey cas grave yi Mballo Dia buñ ko tuddee rek day mel ni yaakaar daal day jeex parce que cas yi moom est-ce que tey ji sunu hôpitaux yi attan nañu cas yooyu. waaw mais eh, boo xoolee ni ka grave bu fekkee ni dëkk bu mel ne Amérique États-Unis d'Amérique. Mhm. ñaata fay dee li fa ëpp li de dee sax deewagul ci yeneen yeneen continent yi. Mhm. xam nga loolu nekk na lu mel ni Espagne lu mel ni Italie France fu nga xam ne ni mënuñu mënuñu dékku loolu ñun ñun duñ ko xaaji mën a dékku loolu mhm. loolu waxtaan wax dëgg ci donc euh, te surtout que cas grave yi ni ñuy bindoo parce que euh, euh, comme que feebar bi ñi muy gën a sonal mooy ñi nga xam ni seen seen seen seen yaram dëgërul pour ñuy supporter feebar bi mm-hmm. ah ñi am ay déficience immunitaire ñenn ñi nee nañu aussi dañuy am ay yenn taar maanaam yenn feebar comme diabète hypertension yu mel noonu mm-hmm. mais mais loolu loolu mooy espérance de vie saa yu rek maanaam saa yu gudd fan euh, fan saa yu gën a gudd rek nit ñi dañuy dem ci li naan mag mm. am na feebar yoo xam ne nag mag ala kuli alin day am feebar yooyu la mm, dañuy ànd ah, waaw day feebar généralement mag mooy am hypertension mm-hmm. bon diabète déjà à partir de quarante ans bo surveillul sa bopp dag mën nga am diabète mhm. boo nekkee ay yoo xam ni dañoo amoon diabète ak yu noonu euh, asthme bi gis nga suñu pollution bi tout le temps xale yi léegi ñi si gën a bari am nañu ay problème respiratoire ay problème asthme yu mel noonu mhm. bon loolu aussi problème yeneen yi ay problème cardiaque ak yu mel noonu donc population boobu aussi dafa bari fii euh, duñu wax ni xel yi a bari bitim réew mais léegi feebaru yi nga xam ni liñ liñ tuddee maladie non transmissible mooy lu ñuy wax ay maladie à soins coûteux mais yooyu daf fi gën a bari te déjà tumuranke woon na sax ci prise bi waaw mm-hmm. bu ñu demee nag ba feebar bi ñooñu la gën a yàpp ñooñu bu fekkee ñooñu la gën a yàpp donc ku ci ku ci am feebar boobu rek parce que feebar bi amul garab surtout loolu moo gën a compliqué bu doon sax feebar bo am garab la ñu mën a wax comme amul garab te ñooñu la gën a yàpp ah, képp ñu gis mu am lu mel noonu euh, di nga bàyyi sa bopp ak yàlla mais yaakaar du du bari noonu. Mm. parce que li nekk feneen yëpp moo moo moo moo fi nekk. moo fi nekk maa ngi dégg. Mm. tey jii lu jëm ci aussi wàllum lii de réanimation yeeg yooyu. parce que mm. ñu ngi doon wax que ne am na ñu commandé yu ñëw ak ñu mais ba tey jii est-ce que peut résilience am na ci côté boobu am nañ ci daal peut-être lu doy loo xam ne mën na daal dékku feebar bi. loolu loolu loolu du doy mais bu doyoon tamit du mës a doy. Mm. loolu d' abord doyul nee na même dégg nga barki dem euh, professeur Manga bi nekk Ziguinchor. Mm-hmm. nee na am na ñaar yoo xam ne xëy na ñaar yi réanimation yoo xam ne occupé na am na ñaar yoo xam ne xëy na am na équipement yu manqué. Mm-hmm. bon bo demee ci yeneen bërëb tamit noonu bon mais nag aussi comme li ma wax sànq rek. cas yi buy gën a yokku cas grave yi gën a yokku mais ni ñu toogee ba nga xam ne amuñu li pour ay cas simple. ah loolu bu ñu demee ba tuumaranke loolu mais dañu mujj tuumaranke fu ñu am ay lal pour cas grave parce que avant même ñuy ñëw ñu ñuy agsi fii si feebar bi ci mbas mi yéen dégg ngeen ñuy wax ay ñuy revendiquer organisation assise nationale sur les urgences loolu yàgg na. depuis mm, depuis presque fukki at mm. depuis fukki at ak yu topp. peut-être genre yi ngeen doon prévoir. Mm. voilà léegi nag euh, kii Abdoulaye Diouf parce que ànd gësam gis nga en deux mille grève bi yëpp loolu ay plateau technique yu mel noonu. Mm-hmm. ak sur les urgences. Mm-hmm. loolu lañ doon wax plus maintenant quelques problèmes yoo xam ni mënul woon ñàkk ay problèmes de salaire ak yu mel ci sa kii syndicat. Mm-hmm. bon mais mais ba ñu d'accord si loolu kañ lañ def kañ euh, euh, sur les urgences ñu ko def en novembre deux mille dix mm-hmm. def assises sur les urgences te xoolal par coïncidence novembre deux la feebar bi éclaté fële en Chine. Mm-hmm. yaa ngi dégg novembre deux mille dix neuf bon ministre bi daal ni à partir de janvier deux mille vingt dina commencer dérouler feuille de route am pour mën a jël en charge urgence yi urgence yi nag mooy urgence médicale urgence chirurgicale ak yu mel noonu. parce que gis ngeen ambulance ci bare dañuy dem ci benn hôpital ñu leen amul lal ñu dem ci beneen amul lal ba na ñoo xam ne dañ leen wër ci biir oto ambulance ba gaañoo. Mhm. loolu par rapport aux urgences parce que hôpital principal moo fi farlu woon euh, am na hôpital bu xam ne aussi ci en son temps vers les années deux mille et quelques ñu mu tëti ab euh, kii maa ngi profité di ko féliciter mooy le colonel Ngom mhm. euh, defoon na ba hôpital de Saint-Louis nekk am unité d'urgence bu am solo waaw léegi nag ñeneen ñi commencé di ci topp mais après ñu bàyyi seen loxo ba finalement comme que ñeneen ñi en amont réglé wuñ seen problème urgence ñëpp dañu wëlbatiku dem principal principal aussi dafay dafay fees yaa ngi dégg. Mm-hmm. ba tax na bu ñu defee feuille de route boobu commencé di ci liggéey far yàlla mbas mi ñëw xam nga loolu day gën a mbir mi. Mm-hmm. ba tax na nag ñu delluwaat rek à la case départ coow li mooy même bu ñu fi indi woon euh, lal yi nga xam ni moo ëpp lal yi fa nekk tamit. Mm. te fexewuñu ba feebar bi génn ci communauté bi. Mm-hmm. donc day gën a euh, bari. lal yi di gën a tumuranke équipement yi di gën a tumuranke mi comme que amuñ ko ñu garab ñu nekk yeneen yeneen situation. Mm-hmm. dégg yeneen situation la ñu nekk. la nekk mu mel ni tey feebar bi daal euh, wane na bu baax aussi suñuy dysfonctionnement ak suñuy taar ci wàllu système de santé. waaw waaw lool moom loolu moom lu wér la parce que mm. muy fii muy <laughs> ci bitim réew partout léegi eh, yàlla daal yónni na euh, xëy na micro boobu ci système de santé pour que ñu ñi xool xam ne xel ni santé priorité la mm-hmm. euh, dafa nekk priorité moo xam ne xel ni li mu laaj comme gëdd dañ ko war a def mm-hmm. euh, heureusement de tout temps de tout temps xëy na temps yi lañu population bi commencé déglu ñu nopp xam ne li ñu wax dëgg la mm-hmm. mais boo gisee suñu plateforme yëpp premier point budget de la santé budget bi mooy indi lépp bis bu nekk ñu naan nañu yóbbu parce que neuf pour cent la ñu xool mais mënuñu ak quinze pour cent même neuf pour cent sax àgguñu fa ba léegi mm-hmm. ah budget wu quatre mille milliards deux cent milliards la santé am te hôpitaux yi nga xam ne actuellement nii ñooy ñooy maladie hôpitaux yooyu fu mu nekk nii sur les deux cent milliards ñoom presque onze milliards de euh, sax onze milliards Euh, moom la ñuy partagé wu hôpitaux yi ci trente six yoo xam ne hôpitaux euh, ñi am ñi un milliard ak lu topp leen di wàññi benn wala ñaar lañu ñi ci des ñëpp trois cent millions la am ay millions pour un an mm. de fonctionnement gis nga lu mu mel mm-hmm. avec le transfert des compétences ah, dans le domaine de la santé de l'action sociale jox nañ leen ko mais fonds de dotation yi nga xam ko jox structure yooyu la mais balaa ñu koy moom mooy li li le financement donc euh, de, euh, disons cette mission de, de santé publique mooy transfert mooy les moyens financiers mm. de la compétence transférée comme ni ñu koy waxee ah nga xam ne am na partie investissement à partie exploitation ñooñu balaa ñu see jot presque fin d'année wala buñ ci jot sax tuuti lu néew lañ ciy jot bon ba tax na nag problématique ku financement de la santé dafa am solo léegi nag lépp lu nga xam ni xel nguur gi indiwu ko pour ko pour ñu ko pour mu koy faje ay doomam ak yu noonu loolu ci bi ci boppam lay génne année yaa ngi dégg mm. et eh, loolu la ñu wax très souvent li ñu naan les dépenses catastrophiques maanaam dépense boo waroon dajaloo pour jëm ko eh, eh, régler sa problème mu oto wala sa problème mu bâtiment ak yu mel noonu nga dem faj nga dem faje ko wala nga faje ko wala sa sa sa sa wayjur mm. yaa donc mm. financement de la santé foofu la kii évidemment euh, euh, dem nañu di xeex ba ba couverture man maladie universelle am couverture santé universelle parce que dañ doon wax ni accessibilité géographique accessibilité financière ak accessibilité physique maanaam na bërëbu fajukaay yi daal di jege et puis nit ñi si boppam ñu faj leen bu ñu bëgg ñu faj leen et ku amul aussi ñu mën la jël en charge mais loolu bu mu amee aussi gis nga CMU bu mu ñëwee bor yi mu indi encore ci hôpitaux yi taseeg bor ya fa nekkoon de hospitalière bi daa dégg mm-hmm. donc loolu aussi matu loolu dafa nekk lu nga xam ne ni euh, ay njàqare la si si problème système bi mais heureusement que ñu ngi siy def ay jàngat ah président de la république nee na dañ ko proposé benn plan quinquennal. Mhm. loolu liggéey nañ ci mi ngi loxo parce que nee na investir pour mettre à niveau le système jox nañ plan bi presque un milliard et deux cent quelques millions la fii pour que fu manqué structure ñu def fa foo xam ne manqué na équipement ak yooyu ressources humaines ñu def fa donc xëy na yaakaar boobu dina am mais nag ñu àgg foofu lan mooy xew loolu mooy problème loolu mooy wax ji hmm. ba tey mbokk yéen a ngi déglu seen émission SOS ah, santé tey ñu dalal Mballo Dia Thiam di njiital SUTSAS ak alliance ànd gësëm de plus en plus euh, ñu ngi wax ci wàllu test test yi mu ngi am ay euh, mun naa ne polémique parce que di gis ñoo xamante ne seen i parents ñu ne dee du Covid moo ko moo ko faat mais leneen a ko faat de plus en plus à muy am ay xëccoo ci côté boobu. waaw affaire problème test yi moom donc liñ euh, euh, ko mën a waxee dafa am ñoo xam ni ñoom lañ ko a euh, fii ci Sénégal Institut Pasteur moo ko doon def même dans un premier temps sax bi feebar yi bul feebar bi sax Institut Pasteur bu Dakar ak Institut Pasteur bi nekk Afrique du Sud ñoom presque ñoom ñoo amoon ndigal googu wala dogal yooyu lay bon récemment gis nga. mbuup euh, bol nañ ci euh, kii am nu mu tëddi euh, laboratoire wu professeur Mboup. IRESSEF di ma pare ñu jox ko benn zone maanaam zone Thiès ak li ko kaw. Mhm. ah mais li am solo mooy am na débat technique boo xam ni ñun mënuñu ci dugg. Mhm. parce que problème bi ay problème mu jumtuwaay la ay problème mu réactif la. Mhm. ak problème mu prélèvement ak condition de prélèvement mhm. waaw surtout prélèvement yi du prélèvement direct si si bakkan la ñuy def prélèvement yi bon mun nga mun nga ko mun nga jot feebar bi tey ji comme aussi mun nga def prélèvement jotoo feebar bi mhm. mais li am solo mooy euh, nit ñi amuñu benn intérêt di wax ni feebar na te feebarul mhm. am yu benn intérêt si ni feebarul te mënuñu ko firndeel waaw mais je pense que débat boobu dañ ko war a weesu bon xam xel ni test yi limuy muy wane mooy ci fukk yu nekk ah, am na benn wala ñaar bu am feebar bi mu renseigné ñi nag si comportement yi ñu war a jël pour éviter feebar bi. mais tey Mballo Mballo Dia Thiam tey selon yow lan moo waral peut-être askan wi euh, di ne dee daal di bañ daal loolu tey jii euh, gënal na leen seen wayjur ñu ne décédé na d'un cancer wala d'un diabète wala que ñu ne seen wayjur décédé na d'un coronavirus. non xam nga déjà problème mu stigmatisation bi. Mm-hmm. moo nekk problème bu njëkk bi maanaam euh, euh, euh, li warul woon am moom moo am parce que mun nañ considérer que ni feebar bu nga xam ni du feebaru Sénégal rek. Mm-hmm. du feebaru nit ku ñuul rek wala nit ku xees mais feebar bi dafa ëlëm addina bi yëpp. Mm-hmm. donc moo choléra ak yeneen moo yam ñoo yam mhm. ah war nañ xam ké képp ci ku mu dal yàlla indi feebaram bon nit ñi sàggan ba am ci mhm. bon loolu lañ ko war a jàppee mhm. mais comme que nag dañoo foog ni képp ku am feebar boobulee wala ku ñu defal prélèvement bi nii dañ lay daw ak yu mel a nar a compliqué prise en charge en domicile bi à domicile bi. exactement loolu moo nar a compliqué parce que képp ku ne yow tu positif mais dama toog sa kër nga confiné foofu xam nga du yomb. du am na ñoo ne sax euh, bu ne kii la koñ sax duñ fa jaar man je Ebola eh, bi mu amee cas boobu amoon parcelle en suñu suñu mbokk moom bitim réew boobu ñëwoon foofu lay mm-hmm. mais finalement nit ñi dañ bu ñu def loon daak sax waa kër gi dañ leen di dañ leen di kii dañ leen di saax-saaxee mm-hmm. dañuy dem ba ba indi leen ay bëgg leen indi ay problème wane bëgg ñoom ñoo indi feebar bi ci liñ ci li ñu mm-hmm. donc loolu jabul nit ñi bu demee ba nga xam ne ko am feebar bi dañ lay gisee beneen bët di la xoolee beneen bët yaa dégg kon loolu day wane encore une fois que ne euh, population bi parfois dafa am retard yoo xam ne dañ koy wone daal ci suñuy jëfin. waaw bon ay retard yi dafa bëri parce que am na koo xam ni gëmul feebar bi. Mhm. te man mënuma comprendre nit ki nga gis ñu ne tey ay junni nit dee nañu quelque part nga ne feebar bi amul. dañuy wax leen di wane tout le temps ci télé beeg maa jaaxal. Mhm. ah am na ñenn ñoo xam ne xëy na yeneen croyance la am yeneen gëm-gëm lañ am ci feebar bi. waaw foog nañ ni bu bu feebar bi ñëwee aussi am nañu yeneen pexe yu dul pexe yi tubaab yi wala yi yi ministère bi du wax wone ah ñooñu aussi dafa dafa jafe pour nga changer leen xam nga conduite du changement li ñuy wax management du changement moo gën a metti mhm. parce que du nekk lu gaaw am na ñoo dañ koy dund benn yoon wala ñaar yoon ba ñetti yoon ñu dool ko gëm. Mhm. donc loolu dafa am dafa am solo ci affaire bi ah, léegi nag euh, euh, li tax mu gën a compliqué feebar bi du problème mu médecin parce que garab mun koo faj. te gis nga cas grave aussi comme ni nga ko waxee sànq ra néew na ñu ci ñu ci rëcc ñu war a delluwaat ci commune communauté bi wax ne da leen di raxasu da leen di jël les mesures d'hygiène da leen di laal alcool alcool gel ak yu mel noonu ba tax na mu nekkaat encore un problème sanitaire ay problème de comportement maintenant nit ñi nag bu dee malgré tout bugguñu changer seen comportement wala pare wuñu pour changer comportement yi loolu mooy pare nañu pour toog pour feebar bi toog fi mm-hmm. ah dégg loolu mooy loolu mooy problème de fond bi eh, ku xam ni gaañu ne ñu ne Covid moo ko gaañ moo moo mo moo moo tax mu génn addina parce que def nañ prélèvement bi ma def naa loolu war nañ ci mën a d'accord ci mm-hmm. loolu xam ni loolu moo am parce que mm-hmm. comme que cas am na fu nekk la mën a jógee kon ay cas importé la nga ne kii cas importé ki ki jógoon France wala ku jógoon feneen ñëwul suma kon mu am ñu parce que nekkul génération spontanée. Mm-hmm. mais xamoo kan la kan la waaw comme que comme que feebar bi fu nekk la mun a jógee ku nekk mën na war na ko mun a am même mag mu toog këram sax sëtam wala doomam na ko indi ci kër gi mm. dem ci biti yi ñu ngi nii da dem ci ay biti yoo xam ni ka borom biti bi du sol masque ña fay dem yëpp duñu duñu sol masque yaa dégg mm. marché yaa ngi fi ak yu mel donc buñ ne diw ah lii la nga ne ko ah xëy na day wax ngeen ko ndax yéen ay docteur ngeen waaye ay lay yoon waaye ñun de yaakaaruñu hmm. loolu. loolu moo am solo mais loolu waruñu tareel quoi pour pour pour dara quoi débat boobu leen. Hmm. tey gis nañu ne peut-être euh, stigmatisation bi bëri na euh, te pourtant tey am na ñoo xamante ne ay kilifa lañ ñoo xam ne amoon nañu feebar bi waaye génn nañ wane seen bopp te lool yëpp day tax nit yi gën a xam ne vraiment lii nii du feebaru rus wala rusaange ndax gis nañ ne ay ministre ki ay prince ak ci àdduna bi fu ne nit ñi gën a am doole. am nañ ko te je pense que nii loolu moom war nañu dépasser stigmatisation comme ni ko waxee mais aussi peut-être est-ce que euh, mbir mi faussewuñu ko dès le départ ak euh, niñ daan jëli jee malade nit ki ñu ambulance ñëw taxaw sa buntu kër ñu ñëw sol seen yére yooyu mbir bi daal xaw a waa seen waa kër sax génn waa koñ ba génn des fois sax da nga daan ñu ñëw di filmer loolu yëpp est-ce que du débat euh, début bi looloo xawoon andi tuuti problème yi. waaw loolu nekk li naan ay maladresse. Hmm. mais li ci am solo mooy euh, comme ni ko waxee feebar bi feebar bu bees la. Mhm. bon ku ci nekk da ngay da nga ciy jàng chinois jàng nañu ku nekk mi ngi ciy jàng bon ba tax na comportement yi maanaam di ñu def prélèvement ñëw ak ambulance yu mel noonu donc xaw na xaw na raglu. Mhm. wante nag ulee loolu mënul justifier leen li quand même. Mhm. waaw parce que ñun même bu même temps normal sax ah ambulance boo ko gaaree ñun yoroon nañu ambulance boo xam ni. Euh, boo ñëwee boo ñëwee suñu benn ambulancier moo xam ne nii daf fi mu dëkkoon. Mhm. ah mu dëkkoon no donc dafa jege woon benn baat ça je le comme ça en passant rek bu ñu nekkee Ziguinchor lañ nekkoon ci benn ci benn liggéeyukaay. Mhm. bon benn ambulance ba nga xam ne xëy na kooku midi fu muy añee dafa jege benn baar. Mhm. ambulance bi dafay nekk ci baar bi alors que loolu. Mhm. yaa ambulance bi bu ñëwee guddi bu gaaree benn kër rek curiosité bi de am ñëpp dañu ñëm jëm wër seet. waaw c'est ambulance moo mel noonu. Mhm. et puis nit ñi aussi mënoo ñëw dans des véhicules banalisés nga ñëw wàcc foofu naan damay seet si diw. waaw mais man nag euh, xëy na yooyu en plein jour nekk na ay ay ay ay ay cas spécifique mais yi ci gën a dégg ci guddi ci guddi gi leen. Mm-hmm. te ci mu couvre-feu am na yu prélèvement yu bare yoo xam ne ni fii à Dakar. Mm-hmm. guddi lañ ko def. ci mm-hmm. couvre-feu bi. ñu dem seen yoon pour ay ka yu mel noonu yoo xam ne ay cas contact bi woon mm. te te infirmier chef de post bi sax yëgu ko. man am na suñu euh, camarade chef de poste yu bare yu woo. daal ni moom man munuma am suma zone de responsabilité ba noppi ñu ñëw guddi def fi prélèvement dem seen yoon. te man waxum wax yëguñu ma ko population yi ñoo ma ko wax. Mm. donc loolu aussi si approche bi comme ñun ni ñu ko waxee ñun feebar bi du feebaru état. ou euh, euh, général feebar bi du problème mu médecin wala problème mu professeur. Mm. feebar bi problème mu communauté bi li ci eh, agent de santé communautaire bi mën ak bàjjenu gox bi professeur agrégé bi xëy na sax mënu ko ci mm-hmm. donc ku ci nekk nañ la jox sa place jox la sa gëdd bu noonu ci loolu la ci réflexion yi xëy na dañ leen ah ñun de population am na leen lu nga xam ne en terme de na leen nuñ koy defee du dul noonu mm-hmm. surtout que sax nit ñi danañ leen euh, euh, da ngay toog nga woote donc soo toogee woote donc bu ñu lay jël si warul mën a poser problème parce que demuñu di bett nit ñi comme ça ñëpp ñu dem seet dañ leen woote dañoo woote wala bu ñu wootee ba pare bi nga xamee ni foofu mooy foyer bi ñu ñëw avertir. Mhm. waaw maintenant nag nit euh, ñi seen wàllu bopp moom ñoo mel parce que mhm. daawaati yéeg am benn gox bu nga xam ne xel nii Eh, benn lakk moo fa amoon bon ambulance ak sapeurs-pompiers a ñëw ñu leen di yuuxu loolu mm-hmm. jàppul c'est-à-dire c'est-à-dire fu mu nekk nii Sénégal yi tamit dañoo war a ñu gën a bëri dañoo war a xoolaat seen bopp suñu bopp ah oui oui ah oui oui parce que même bu dul <laughs> di ñëw di seet si mais kooku nekkul ku sàcc mm-hmm. bu nekkee ku sàcc sax bu fekk ay forces de l'ordre ñëw nañu war nañ seet ñu bàyyi leen baaj def seen liggéey amul dara lu war a justifier ñu leen di xeer di xeer ay personnel de santé yu nga xam ne wér-gu-yaram

ay ay politiciens yuy xeexu ci dëkk bi wala ay affaire élection yu mel noonu fii mm. couvre-feu bi dañu nii toog leen seen kër restez chez vous. Mhm. pour que kenn du leen fekk si du ngeen fekk kenn pour que feebar du mën a circuler ci guddi gi. waaw mais loolu bu dee loolu am na ba pare yow ngay dem di def leneen di défier loi aussi aussi. Mm. waaw te am na ñi ci war a wax duñ ci wax aussi te dañ mm-hmm. ci war a wax. Mm-hmm. waaw loolu teguñu ko fenn léegi. Ah, maintenant na docteur bi nag bu la nee feebar bi lii ma ko joxe bàyyi ko mais da koy bàyyi parce que boo feebaree ci moom ngay ñëw. Mm. moom nga yaakaar donc loolu moom même bu amee ay quelques maladresses aussi. loolu man pour man mënul justifier li am mënul justifier comportement yi am mm. tey tey mesure tey mesure d'assouplissement yi tey euh, gis nañ ne jël nañu ko mais feebar bi mm, cas yi ñu ngi gën di am cas communautaire yi di gën di bëri est-ce que mhm. tey euh, du tey laaj peut-être ñu dellu gan est-ce que egg foo xam ne ñaanuñu ko yàlla foog ñu delluwaat gannaaw waaw am na ci ay dëkk yu am <laughs> am na ay dëkk yoo xam ne lu mel ni lu mel ni Ghana par exemple ba ko ba ñu defee ay mesures d'assouplissement ñoom ñoo ni ci benn usine am na benn nit bu bu wàll cinq cent et quelques personnes foofu ci biir usine bi finalement dañ ko obligé tëj ah mais dellu ginnaaw aussi am na tuuti parce que euh, xam nga na nañu ni julli côté bi dañuy bàyyi nit ñi dem ñu wax la ay laissez-passer ah <laughs> mais bu ñu toogee ba xam ne xel ni Dakar mii bu ñu bàyyi laisser passer waa Dakar dañ dem yóbbu virus bi yëpp ci at ci ci Sénégal gi yëpp ah dégg nga ministre de l'intérieur li mu hmm, génne communiqué ah sama téléphone baa ngi nii communiqué baa ngi ñuy fang fangaral ñu ne kenn kenn kenn du génn Dakar Cees yooyu duñ hmm. mais ñu ngi hmm. mais nag aussi waroon nañ gën a gën a parce que comme que bu fekkee ni nee nañu interurbain urbain mu doon poser problème ñu arrêté le transport interurbain ba tax na région yu bëri par exemple Goudiri ñu félicité bien li li fa li fa ko def le gouverneur la mhm. fexe na metti woon na si ñoom mais tey jii am nañu affaire yaa léegi mais mu metti benn yoon nga am affaire gën du metti ba pare te doo am affaire mukk mhm. tey confinement bi est-ce que duñu egg foo xam ne euh, dinañ c'est est-ce que c'est inévitable tey confine confinement bi tey fu mu nekk nii euh, spécialiste yu bare nee nañu euh, weesu na. Mm-hmm. parce que kan ngay confiné. ak fan nga bu doon sax dafa am ñenn ñoo xam ni parce que bu njëkk ba euh, xamoon nañ ni lu mel ni ay zone Kër Massar ak yu mel noonu amoon na. Mm-hmm. ak ay zone yu mel ni Touba. Dakar boobu temps du Dakar yëpp moo amoon. foofu amoon na pertinence. Mm. nga xam ni fu am ñu jéem a jël ay mesures. mais aussi dafa nekk ay mesures mm. oui oui mais aussi comme ni ma la bu fekkee da nga bëgg waa Dakar nga xam ni fii la ñëpp di fort forato fortato ku ci nekk da xëy wuti indiwaat. Hmm? te joxoon leen lu nga xam ni mën nañ ci góor pour que au moins sept jours wala quatorze jours ñu ñu ñu mën a téye seen bopp ñu mën a arrêté circulation virus bi loolu moo mënoon nekk. Mhm. mais munoo woon ci moment boobu nga commandé ay dund dund yi accès wul ba pare nga téye leen presque weerul topp ñaari weer ba pare nga bëgg lu wutikuwaat gën a serré état bi day indi yeneen yeneen yeneen ndax mën a indi yeneen yeneen mouvement. yeneen yeneen waaw yeneen mouvement ah, gis nga demb rek <laughs> Tambacounda bi ñu ne na taximaan yi dem. Mhm. ñeneen ñi nga xam ne aussi am nañu ay vélo taxi ñoom ñu considéré comme seen bopp ay taximan di fay les mêmes droits gis nga jóg nañu aussi ñoom ñu ne duñu duñu bàyyi kee bàyyi ñu. Mm-hmm. Ah, waaw mm-hmm. or or or conditions yi ah. mm-hmm. révolte daal lay andi. waaw <laughs> xam nga xam nga taxi ñaar ni dañu dañuy dañuy moto taxi ñaam it il faut que ñu ñu ñu ñu toog ci benn kii jàkkaarloo parce que xaw ma bu ñu jàkkaarloo xaw ma kenn ki day woon ginnaaw kenn ki ah mais loolu bokkul ak euh, taxi bu nga xam ne mën def un aménagement ki nekk ci kanam ki nekk ci ginnaaw. ah mais bu ñu demee taxi bi na def plein <laughs> mais wax njagaan yaay ak ñëpp nañ plein mais mais taxi aussi dañ naan ñoom dañ def seen plein parce que day nekk problème de justice quoi problème d'équité quoi parce que mm. nit ñi noonu koy gisee te duñu gis ni yow dañ lay dañ yow. waaw. Ah, xamuñu ne yow moto taxi boobu dañ lay aar parce que ki nga supporté xamoo kan la. Mhm. même bu dee yow foog nga ne yow dara jotul la. Mhm. Euh, tey aussi gis nañ ne euh, askan wi quand même quoi qu'on puisse dire euh, lu jëm par exemple ci côté masque yi moom. gis nga ne dëkk bi yëpp gars yi ñu ngi sol ay masques quand en tout cas la plupart moom ñu ngi sol ay masques. di mm. peut-être des fois masque bi moo dul xaw a jaar yoon. wala peut-être mhm. masque bi cet gi day des ak yooyu mais masque yi moom ñu ngi koy takk. Mm-hmm. waaw waaw ñu ngi takk masque yi <laughs> mais euh, mais niñ koy takkee aussi. Mm-hmm. parce que loolu yëpp aussi am na parce que bu fekkee ay mesures dañ koy jël. a ah, dañuy dem ba ci contrôler mesures yi mais ba léegi man gisuma benn texte bu ne ñu ngi rendre le masque obligatoire dans la rue. Mm-hmm. waaw nee nañu masque yi dans les lieux publics wax nañ ko. mais poru masque ci mbedd mi amul dañuy wax systématique maanaam genre recommandation. ñun pour ñun waxoon nañu loolu que euh, agglomération yu mag Dakar yi dañ leen confiné confiné euh, Touba ak li ko waxoon nañ ko bu yaa safi bientôt un mois. Mhm. maintenant bu ñu ko deful ñu ne à défaut de cela nañu rendre le port du masque obligatoire. Mhm. mais loolu dafay gën a wàññi aussi les risques mais mais le port du masque n'est pas obligatoire dans la rue fu mu wala wala ci yenn gox yi lay facultatif te loolu war nañ aussi si mesure yi la bokk maintenant nag ñu vérifier aussi Mhm. ah am na un jour ma dégg ci benn gox fii grand info yooyu ñu ne am na ay problèmes yu amoon entre ay alkaati yi doon lu contrôler ay masques ak ay population mhm. ba ñooñu ñu leen di ñu leen di ñu leen di kii ñu leen di xupp naan di di di menacer ci buñ la waxul takkal sa masque la lañ lay wax takkal sa masque pour aar sa bopp kooku histoire war ci mën a ça war ci mën a am. donc loolu mooy si loolu mooy problème bi mooy population yi aussi des fois euh, dafa mel ni dañu amul euh, dañu amul cette conscience la mm-hmm. xam ne xëy na feebar bi tant que mu ngi fii li nga amoon akas néew tey bu subaa dina dinañ la ko xañ. Mm-hmm. Hmm? et na maintenant da ngay am ay risques risques yu garaaw loolu war nañ ko war nañ ko dugal seen bopp yi mais nag am na ñoo xam ni gëm nañu ñu ngi ci mais am na ñoo xam ni gëmuñu dara te malheureusement lii wolof di wax kër njugub njugub day lakk lakkaale kër pitax. yaa mm-hmm. waaw mais war nañu jéem a gën a gën a tagal mbir mi ci affaire maski yi rendre leen obligatoire ba pare boobu mu am un systématique ma def naa loolu aussi nekk na lu mën a mën a mën a wàññi feebar mm-hmm. euh, tey jii ñu ngi doon wax euh, wàllu pic parce que bi ñu jëlee mesures yi ba pare euh, ministère ministre de la santé dafa génn wax ni egg nañ suñu pic donc am ay spécial yu génn weddi que ne bon eggaguñu ci pic beeg yooyu mais tey mbir mi ni muy demee ni wane na ni pic boobu moom eggaguñ ci moom. waaw xam nga xam nga pic moom moo naan feebar bi bu eggee ba ci jom jox baxtal gi parce que mm-hmm. dañoo considéré toujours épidémie bu amee day commencé di yéeg bu yéega ba ci kaw dootu mën a yéegati parce que mm-hmm. amul benn condition boo tax mu mën a mu mm-hmm. war a mën a ah, mais ñun ba ñu demee ba nga xamee ni amoon nañu nombre boobu bu fekkoon ko ne woon di di mesure yi gën a tar defoon naa ne bu boobaa mun nañ créer condition mu wàcc mais léegi mënuñu à chaque fois ñu ne am nañu quatre vingt dix am nañu cent am nañu quatre vingt ñu naan ñu ngi ci ñu ngi ñu ci pic bi. Mhm. ah nañu wax ni daal ba léegi man li mu mën a jàpp mooy ñu ngi ci phase ascendante ba léegi mi ngi yéeg. man loolu laa mën a considérer que mu ngi yëg. Mhm. ok mhm. donc mu ngi yëg muy noonu. Mhm. donc comme que mu ngi yëg nag bu ñu nekk fi di jéem a weranti ci am nañu pic wala amuñu pic li am solo mooy feebar maa ngi yëg nañu jéem a gën a farlu ci biir communauté bi pour que ñu fexe ba. ba ba circulation virus bi du am parce que au moins xam nañu ni euh, euh, bu jógewul woon France du fi du fi du fi dugg yaa léegi euh, donc bu duggul ci kër aussi bu bu buñ ko duggul ci kër aussi du fa dugg donc donc loolu mooy loolu mooy sabab bi en fait. Mm-hmm. tey ñu gis ne aussi lu mel ni euh, rapatriement corps yi doon na mesure boo xam ne njiitu réew mi aussi jël na ko euh, après benn euh, peut-être polémique bu amoon diggante famille yeeg yooyu tey ji ñu ñu autoriser ko tey est-ce que amul risque ci côté boobu selon yow. si am na risque parce que lan moo taxoon euh, ñu ne ñu ne woon loolu du am duñ ko def fii dañ doon scientifiquement dañoo prouver ko ni corps bi parce que euh, nit ki bu génne àddina ci waxtu yu yuy topp loolu corps bi dafay am ci virus yi la ñuy wax dafay dafay contagieux mm-hmm. ba tax na sax am na ay dispositions particulières yu ñu jël pour corps bi ak ay sac mortuaire lañ koy def te même buñ koy denc sax duñ ko denc comme ni ñuy dencee nit ku génn àddina surtout ñun ci sur réew jullit yi. Mm-hmm. waaw parce que ñuy gas fële gas bi moo a xóot ci yenn conditions yi donc loolu yëpp wax nañ ko. ah bu dee nag aussi réew yi nekk tugal ak yu mel noonu mën nañu xam ni sax y a minimum de conditions yoo xam dañuy def seen biir kees daal di wut condition yëpp moom mënu ma wax ni nag loolu am na garantie yëpp mais au moins mooy tane ay garantie mais yooyu buñ ko mm. bu ñu tëjee kees gi ba pare doo ñëw di ko tijji di xool da nga koy denc yaa léegi uh-huh. risque yi nag mooy si ñun ñi parce que bu ñu indilee néew il faut nga xool ko ah ñii naan dañ koy xool ñii naan dañ koy sang ak yu mel noonu foofu mooy risque yi foofu tam xam nga ay risque lay doon aussi. Ah, donc bu doon ci tubaab koy conditionné noonu comme ñoom li ñuy denc seen i néew boo ñëwee rek ñu ne kees gaa ngi ñuy dugal foofu. Mm. mais ñoom ah dañuy ragal li est ñu leen indil moom la wala keneen la wala yu mel noonu xam nga li si fi indi ay jeex jaaxa. leen di jeex waaw te dèjà bu ñu ubbee kees gi ku di xool wala di jéem a sang mën a indi yeneen problème. a donc dans tous les cas moom ku la wax ni amul risque vraiment wax na ay risques. Mhm. parce que risque zéro amu ci. Mhm. léegi nag mën nañ considérer que ni réewu tubaab yi ak yenn réew yi bu fa yi ñëwee mën conditionné ko mais néew yi du ñu jógee rek ci réew tubaab yi fii la ñuy am na ñoo xam ne Afrique la ñu jógee fii. Mhm. Ah, am na suñu ressortissants ñu ngi ci dëkk yooyu yëpp est ce que dëkk yi ñu nekk fii ñoom tane nañu benn tane bi ba a def condition yi nga xam ne moom la affaire bi laaj pour mu ñëw. doy na waar mhm. waaw mu nekk ay problème mhm. maintenant nag euh, euh, ku ci nekk nag euh, sañ nga nag wala bëgg nga ku la jege quand même bu demee bitim réew di fa daan dooleem bu mënatul mu ñëw dellusiwaat fii. Mm. yaa ngi dégg nga denc ko sawet di ko dem di ko seet di ko ziar. Mm-hmm. loolu ku nekk bëgg na ko. ku nekk bëgg na ko nga am sa wajur wala sa kenn mu mu sori la ñu denc ko ci àll bi loolu métti na. loolu loolu il faut mm-hmm. comprendre parce que il faut aussi se mettre a la place des autres. à la place des autres day métti surtout loolu. waaw mm-hmm. waaw mais nag li am solo aussi comme que tamit bu ñëwee fii tamit risques yi moom dem na ba pare te mën na aussi lawal feebar bi ñeneen aussi jot ci. yaa profité yi wax la Ebola en Guinée eh, lan moo taxoon mu mu gën fës. Mm-hmm. sax ak yeneen réew yi wetam parce que xamuñu woon affaire feebar bi. Mm-hmm. ku ku gaañu ñu ñëw ci def cérémonie mortuaire ak. sànq ku nekk yóbbu. Mm-hmm. waaw yooyu bu ñu xoolaatee mbir mi la nga xam ni Ebola bi si boppam dina rey mais li tax mu gën a rey mais képp ku dee rek bu ñu ñëwee ak ñi ko wër ak ñi ko noonu ñooñ seen wàll boobu ak ñi ñi leen doon faj ak ñi ko recevoir ñoom ñëpp dañuy dem. dañuy dañuy génn na. Mhm. donc ci lañ commencé di jël ay matuwaay si si affaire Ebola yi leen wutal ay camp ak yu mel noonu. nga dégg. moo waroon tax sax euh, ñu def ay centre euh, d'opération donc euh, pour que feebar yu noonu bu amee ñu leen di traité fi nga xam ne nekkul ay bërëb bu hôpital wala beneen bërëb bu nekk hôpital. Mhm. voilà tey émission bi li ci des bariwul Mballo Dia mais bëgg naa la ci côté paj mi. parce que euh, am waxoon nañ fi temps yële chloroquine bi ak li ci am yëpp euh, Covid organique bi ñu wax ko mais après déggaatuñ ci dara euh, tey est lu mel ni par exemple Covid organique. Euh, maanaam sunu ñun sunu africanité maanaam tey lu mel ni ay suñu plante yi nga xam ne ñun am nañ ko ñu ni tamit est-ce que war nañu des gannaaw ci peut-être recherche euh, vraiment pour xool lan moo war a mën a andi solution ci ci mbir mi parce que fu mu toll nii chercheurs yi ñu ngi ci mais ba léegi solution amagu ci carrément. waaw loolu li nga wax dëgg la ñu ngi ñu ngi ñu ngi def ay recherche xëy na dafa timide rek et puis recherche aussi soxla xaalis bu bari ensuite mu nekk une orientation maanaam maanaam bëgg-bëgg pour loolu ah léegi nag euh, euh, euh, feebar garab gi jógee Madagascar nee nañu garab googu am na solo bon université def na liggéeyam ministère de la santé xëy na tamit mi ngi ciy def bay waaram mais li am solo mooy même bu dul loolu sax dégg nga moo fan yële passé bi muy wax ci affaire u MEDIS MEDIS mooy. Euh, ki nga xamee ni usine la bu nekk fii euh, kilomètre seize fii mm. euh, jàmm gan ah usine boobu day defar da doon defar chloroquine mm-hmm. ah mën na defar ay million wala deux millions comprimés par piste dana mm-hmm. ah, doon na defar ay fer fer pour jigéen ñi war na lor mm-hmm. dana defar aussi ay vitamines ak yeneen ak yeneen mais médis boobu lay ensuite après tubaab bi bon ay wa tunisiens yi ñoo jël ko bu fi ne ñu am problème mais ñoom nee ñu ci ci benn weer rek mën nañuy defaraat machine yi formule baa ngi fii ñu dem produire suñu chloroquine fii. Mhm. yaa ngi ak yeneen yoo xam ne war nañ ko soxla budul dara sax parce que feebar bi aussi des fois da ngay def ay perfusion def yeneen. Mhm. ak yeneen ak yeneen da joxe jox ay vitamines ak yu mel noonu donc loolu mu ngi fii donc ñun li fi nekk mu bari mu néew waroon nañ ko ñoŋal. ko mën a mettre à usine boobu la parce que PNA nee na li muy commandé ci médicament pour faj Sénégal yi quatre-vingt pour cent ci ci biti la jógee. Mhm. donc bu ñu fexe ba production locale bi moo tax aussi ñu invité aussi suñu investisseurs yi nañu jéem a xool foofu au lieu que ñu ñu nekk ci bâtiment rek leen baax na wut ay bâtiment situation de rente mm. mais aussi sur la pharmacie. en tout cas euh, tey de mbir mi wane na ni moom yi amul solo tant que amoo wér gu très bien voilà moom suñu pharmacien yi ak ñi xam ne am doole am tuut ñu naan ay milliardaires ak yu mel noonu war nañu mën a investir ci industrie pharmaceutique ak ci recherche bi mhm. parce que tubaab bi aussi noonu lañu noonu xool ma vaccin bi fu mu nekk ñu ci dugal ay milliards pour que ñu mën a a a am vaccin pour mën a am aussi xaalis bu jeex encore di ci gën a encore mhm. parce que ñun trouvé wuñu dara mhm. wax lu am solo la war ci góorgóorlu et puis a xool comme que am na fay résultat nañ ko indi ah, parce que parce que ba léegi même rawul mi nga xam ne ni moom la ñuy topp moom ba léegi waxul ni médicament bi dina ko facc mhm. dafa ñu médicament bi gis na daal bu ko joxee daal loolu tax ko woon jóg mais dina wéral ñu bari. dina wéral ñu professeur professeur aussi ma nga fa mi ngi ci. ah xëy na ñàkkul aussi ñu jéem a làmb tamit euh, Covid organique bi xëy na aussi comme que am na ay résultats feneen ñu jàpp ci en attendant ñu wut leen aussi. Mm-hmm. mais ñun yàgg nañu wax ni <laughs> nañu développé pharmacopée bi. ah am na ay temps sax ñu bëgg jaay PNA du temps du kii ñu leen non non non PNA bu fekkee ni da ngeen bëgg nekk mu nekk industrie mais nit ñi dañu ñëw investir foofu mais moom comme que grossiste la répartiteur jox médicament service public yi kon kenn du jaay PNA ay mm. changé statut yooyu ñu nekk ñu ci loolu mais à côté nañ def industrie pharmaceutique ba tax na aussi ñu ngi rafetlu industrie bi am jandeer def ay soluté ak yu mel noonu parce que ndoxum suukar mooy sérum glucosé ndoxum xorom mooy sérum salé mm-hmm. buñ ko day def ay bateau ak avion millions di ko indi Sénégal fii pour Sowétas xam nga loolu xam nga loolu ensuite comme dans la même veine aussi comme ni ñu ko waxee mais mënuñu def pays de coton ñun pays de coton ba pare di importer coton cardé coton hydrophile. Ah, hmm. di importer ay compresses loolu aussi dama ko ci boole waxaale ko ci ngeer ngi nekk fi ak yeneen ak hmm. donc je pense que li nga wax dans la recherche. Voilà. et dans les investissements dans l'industrie pharmaceutique. donc loolu aussi mën nañu ci génne. Mhm. dernière euh, question moom mooy ci wàllu ñu gis ne tey euh, vraiment syndicats yi acteurs société civile vraiment ñoom même dañoo daal di booloo ànd ci xeex bi euh, ndax tax li nga xam ne moom mooy premier mais gis nañu da ngeen teg lépp ci suuf ngir vraiment gunge gouvernement bi tey ci ci xeex bi mais tey est-ce que gouvernement bi impliqué na leen comme il se doit impliqué nañ maanaam syndicats yi comme il se doit ci xeex bi kenn syndicat santé yi. no non non loolu ba léegi ministère de la santé ñu ko koy wax pourtant ñu rappelé ko ko euh, nee nañu ñun suñu place euh, dañ ko fa am te dañ ko war a war dañ ko war a fees. donc implication bi amul. Mhm. mais nag ñun comme que ñoo nekk ci suuf ñoo nekk ci kaw donc ñu ngi ci mbir mi mais ñun suñu baat waroon na gën a jóg. Mhm. suñu baat waroon na gën a mën a fekkee seen baat ñoom. pour ko mhm. bu ñu waxee li ñu ne lii mooy suñu xalaat. mais loolu amu fa bokkuñu ci comité national bokkuñu ci comité régional euh, benn bis la ñu woo mooy bi bi gouvernement bi bi bi ministère de la santé présenté plan bu njëkk bi bi ñu ko présenté son excellence monsieur le président de la république mooy plan contingence bi ñu waxoon ne un milliard cent millions la. ñu leen boobu ñun waroon nañ ci bokk wax la suñu xalaat mhm. ñu woo nañu presque bi ñuy defee suñu sorti boobu lay def déclaration ñu woo ñu nit ñi ni voilà plan bi la tëddee mais à partir d'aujourd'hui dañ leen di boole mais boole wuñu ci dara. daf ñu ko def seen mbiri bopp mais loolu taxul aussi comme ni ñu wax ñu bese suñu loxo. Mm-hmm. ñun ñoo ci di ci bay suñu waar comme il le mm-hmm. moo tax sax bëgguñu def yenn procès yi mm-hmm. procès yi parce que fu mu nekk nii waat ku nekk daal yow sàggane nga lii wala waroon nga def lii wala waroon nga def lale. te loolu aussi c'est parce que dañoo am un esprit républicain. parce que mënoon nañ taxaw fële ñun. waaw di xëpp suuf di sànni xeer guddeeg bëccëg mën nañ ko mais defuñ ko au contraire ñu ngi leen di accompagner ci lu nekk lu ñu wax rek d'accord nañ ci ak ñoom. Mm. même bu fekkee à notre fort intérieur am nañu beneen argument contraire. d'accord voilà am na solo en tout cas Mballo Dia Thiam euh, ñuy ah. lay jaajëfal bu baax a baax ñu may la nga tàggatoo ak mbokki auditeurs yi ak li ngay dénkaat askan wi. waaw dénkaane bi daal mooy xam ni feebar bi euh, feebar bi wër na àddina mais feebar bi aussi ñun ñoo ko mën a génne suñu biir du président de la République moo fi génne du ministre la santé ci suñu ay comportement la ñu war a xoolaat suñu bopp xam ne feebar bi am na te tant que ñu ngi ko sàggane dana fi gën a toog te fu gën a toog mu gën a lor parce que bu nit ñi gënee bari euh, euh, bérébu fajukaay yi dañuy gën a tumuranke équipement yi gën a tumuranke te boobaa aussi li ci am li ci li ci des xam nañ ko parce que lay xew feneen ci ñi gën àddina bari na lool sakana lool ñaanu yàlla mu am fi li ci des nag mooy ministère de la santé war na xam ne xel ni euh, liñ naan mbaam lu mu gàtt gàtt si si jur gi la bokk yaa dégg ñi ñi nga xam ne war nañ leen impliqué ñu impliqué leen euh, bàjjenu gox yi agent santé communautaire yi ñu boole leen ci gratification yi daal leen dooleel parce que ñoom ñoo gën a risqué ñu protéger leen nañu protéger personnel de santé parce que protéger ñu mooy protéger population yi bàjjenu gox yi ak yu mel noonu bataille bi bataille communautaire la nañu fexe ba bataille bi nekk ci suuf ñi ci war a jàpp jàpp Sénégal yi nag aussi xoolaat seen bopp xam ne bu ñu bu bu méttee comme koor rek boo wooree ba ngoon heure ndogu ñëppay kontaan buñ ko defoon quelques jours rek def naan dinañ ci génn comme ni ci ñeneen ñi génne. Mhm. ñooy di la jaajëfal yow tamit. Ouleye euh, mhm. di rafetlu sa émission bi. merci mhm. euh, di euh, sargal yéen waa réew mi yëpp. merci comme que réew mi moo leen ñor yàlla na yàlla dolli sutura gën a. situation yi nekk ni quoi. amin ñun tam dañ lay bu baax a baax euh, Mballo Dia Thiam ndax saa yu ñu euh, soxlaa rek euh, nga daal di wuyu ci sunu kon invitation di la ci jaajëfal bu baax a baax di la rendre hommage parce que ku am solo nga ci système de santé bi voilà di jaajëfal mbokki auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ñu doon déglu ci la 97.5 tey ñu doon dalal Mballo Dia Thiam di njiital SUTSAS waaye tamit alliance ànd gësëm doon waxtaanee feebar bi di coronavirus ak stratégie bi nga xam ne lal nañ ko ci. ngir eh, xeex ko fii ci biir eh, réew mi Ouleymatou Diallo moo nekkoon ci eh, kaddu gi di leen dig daje vendredi prochain incha allah beneen thème ak beneen invité ci la 97.5 mun ngeen dégluwaat émission bi ci www.rewmi.com ku jërëjëf.